regarder ce qu'on propose c'est moi la maîtresse. devoir à je suis le surveillant man maay doyen. école boo dem am na doyen. école <laughs> boo dem am na doyen. te man maay doyen mais mos ngeen gis élèves yu mel nii. devoir à faire de la classe merci beaucoup. très bien je suis le responsable de la classe. madame élèves yi ñu ne devoir à faire à la maison de mais il est l'heure 10h46. baby hair waxal. <laughs> war a ma picc rek plateau bi man bëgguma leen nañ <laughs> <laughs> calcul numérique règle priorité règle numéro on effectue d'abord les calculs entre parenthèses s'il y a des parenthèses emboîtées on commence par les plus intérieures on remplace souvent les parentaires extérieurs par des crochets, puis éventuellement des accolades. Exemple, A égale 7 plus 4 entre parenthèses multiplié par 8 moins 5 entre ce qui donne A égale à 11 multiplié par 3, A égale à B égale 5 multiplié par crochet 19 moins 8 plus 7 entre parenthèses crochet. On a ici des parenthèses emboîtées. On calcule d'abord 8 plus 7 parce qu'ils sont plus à l'intérieur. Ce qui fait B égale 5 multiplié par 19 moins 15 entre crochets. B égale 5 par 4. B égale à 20. On dit que les multiplications et les divisions sont prioritaires sur les additions et les soustractions. Exemple, C égale à 12 par 5 donne C égale plus C égale 27. D égale à 20 moins 12 divisé par 4 donne D égale 20 moins 3. D égale 17. E égale 45 divisé par 9 plus 2 multiplié par 4 égale à ce qui donne E égale à 5 plus 8. E égale 13. Grande 2, cas des opérations qui ont la même priorité. A, s'il n'y a que des additions, on peut calculer dans l'ordre qu'on veut et faire des regroupements. B, même chose, s'il n'y a que des multiplications. C, mais s'il y a des soustractions ou des divisions, ce n'est plus possible. Règle numéro

égale à 6 multiplié par 8 divisé par 12 multiplié par 5. G égale à 48 divisé par 12 multiplié par cinq G égale quatre multiplié par cinq G égale 20. voilà eh, ñu ngi doon waxtaan ñoom seen biir donc règle de base yi tey euh, règle de calcul euh, la ñu euh, jàngale très intéressant surtout pour xale yi parce que bu dee mag ñi peut-être dañu koy dépasser ba fàtte ko mais c'est toujours bien nga xamaat ko pour aider un peu élèves yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci biir kër yi parce que à chaque fois ñu jox leen règle de base yi dañ koy dugalaat ci YouTube bi ak ci Facebook bi pour vous comme quoi profiter d'internet pour faire vos devoirs ñaari calcul. maîtresse 10h50. ñaari damay liggéey léegi ci rajo bi. damay woyaa ni dama banque. ñaari gaaw rek. Cheikh gi may xaar. ñaari gaaw. Ndéla Wade ak may xaar. ak di Momi Kébé ak may xaar. Alaaji Papa Diop ak may xaar Lawla Thiam. ñaari gaaw Fatou Laye mu may xaar. Nadoura mu ngi may xaar. Mhm. Adama Barrow président Gambie mu may xaar.